sant bu baax rek te la ñaan di la wér dolli xéewal yi te gën ñoo xiir ci sëriñ bi amul lu dul moom kon li war a def mooy fexe ba gën a jege sëriñ bi waaye tax ci moom rek ndax amul ñun jenn yitte ci àdduna yéene yi ñu am ci liggéey bi ñu mën ko loolu li tax ñu mën ko de xol yu ko defee ñu fi bastéef yu ko defee ñu fi lay tax ñu mën ko nag mooy ñu am doole ñu dooleel li ñu bëgg te yéene ko ci sëriñ bi danañ ko mën ñu koy ñaan sëñ bi sëñ bi nag moom dara taw ko seen maam bu baax di ko toppoon ak bëgg rek ak pas-pas moo tax ba mu yegg bu yegg fa mënuñu mënuñu ko jot nag waaye waxtu wu ne nan koy roy rek waaw nan koy roy rek waaw ñuy topp bëggam lam daan def parce que yéene xam naa mënuñu ko sax waaye nan am pas-pas bi ak bëgg bi suñ ko defee rek mën nañ ñoo dimbali ba ba lu bëgg a yegg bi yegg jërëjëf Ba jërëjëf ñu sant ñëpp di sant gone itam gis naa ni ñu taxawee ci sa wet noonu euh, it moom la doxee woon démb ak bëgg démb loolu moom dara ump leen ci gis moom ni ma doxee woon ak moom kon ñoom ñit bu ñu xoolee ci loolu rek euh, dara du leen jaaxal seen seen ñoom wan nañ leen fu ñu war a aw daal nit nag bu ñu ko wanee fa mu war a aw euh, bu bu mam ngeen jaaxle na na tege ci yoon wi rek te gëm waaw gëm rek ndax àdduna moom moo baaxoo soo nekkee ci lu baax di dox euh, seytaane day jóg rek bëgg laa deex waaye loolu da ngeen koy xam nag te di ko moytu waxe kenn jàpp leen rek def ko way jur na mu mu jàppee woon rek jàppee jàppee leen ko noonu loolu daal man mooy li ma leen sant mooy li ma leen digal ma leen mën a dégg leen dund xam leen ni loolu neexuma ànd gi rek moo ma neex ak toppante gi jërë ngeen jëf mbok yi gisee nak Serigne Cheikh daru Fall ànd ak rakam yu baax yi Serigne Cheikh Jëm Fall ñu ñëw siyaare si Serigne Saliou Fall àndil ko gàtt yi ginnaaw ko àndilee nagu magal ba noppi tey ngir ñëw siyaar si sëriñ bi rek daf ko àndal ñaari gaal ngir nuyoo ko sëriñ bi